maa ngi sant bu baax maa ngi si jàmm baax a baax. ma bàyyi nga nuyu mbokk internet. waaw maa ngi nuyu ñi seetaan ñëpp tey nag euh, soo gisee ma ñëw fii Radisson Blu fekkee sorti album Pape Diouf bi c'est parce que borom ci boppam Pape Diouf ci boppam moo ma moo jox cër. Mhm. nekk xale bu reconnaissant xale bu baax xale bu nangoo liggéey xale bu am jom xale bu am ngor un grand musicien surtout un grand chanteur ah parmi ces euh, parmi génération c'est l'un de meilleurs macha allah euh, nekk nag koo xamante ni daf ma fonk lool def ma magam def ma xaritam def ma confident am ci lépp loo xamante ni mu ngi koy liggéey comme ni mu ko waxee sànq ci biir conférence de presse bi lu muy liggéey rek dina ma woo man fàllu yónnee ma ko ne ma déglu su ma ko dégloo wax sama xalaat mu retenir ko donc xeebul sama conseil xeebul sama dara looloo waral tey buy gën def euh, te album bi bi mu koy liggéey dama cee ñëw fekkee am fa ay heure moom xool de morceau en morceau gis ni liggéey na li ma ci mën a rectifier ma rectifier ko mu ànd ceeg man ah macha allah may rafetlu loolu parce que li mu def tam yombul nit moom boo comprendre rek da ngay woo ñu lay mag ci ñu lay comme ni ma ko waxee sànq ku la jiit su néegul na moo lay wan fooy toogee et puis soxla nañu yeneen oreille musicale yoo xamante ni ñun suñu ñëwee dinañ man dañ leen mën a wax li ñu li ci xam si ah, suñu xam-xam bu ndaw ci bi ñu am ci musique Euh, dinañ ko mën a euh, conseiller te moom tam loo ko rek macha allah da koy def mu nekk xale bu baax te nag exemple la si génération am ñu roy ci moom parce que rëyul xeebul kenn ku ko jiitu ci aar bi jox na la cër tey xeebul sa xeebul sa sa conseil donc loolu moo waral tey sama teewaay ma ñëw te donc album bi mu def wax dëgg yàlla album bu mag la de damay wax ni diversité musicale moo jafe woon te nag album bi am na ko mooy album bi dafa am diversité musicale. Mhm. te donc na ko sénégalais yi xaar te déglu ko. Mhm. te xam ni Pape il a bien travaillé. alors Pape a bien travaillé mais Papa Fallou tey ñu gis si li nga xamante mooy avancement bu ko si ba tey jii mu génnee album si science d'écoute bi ñu gis ne ay paroles ay thèmes yoo xamante ne mu yeete la thèmes yoo xamante ni boo ko déggee euh, bu fekkee am nga jom am nga fulla euh, di si jëlee njëriñ si li nga xamante jot nañ ko dégg si li nga xamante ni moom mooy nouvel album bu Pape Diouf bi tey. mais loolu c'est important gis nga album soxla nañ ci musicalité mais soxla nañ ci surtout parole parole yoo xamante ni dafay éduquer tout un peuple ñun loolu la ñuy xaar si ñoom xale yi. damay wax ni affaire du mën a way rek ñi fi yor baat yu neex bari mais ñoo ngi caaxaane seen baat baat boo ko amee mu neex da ngay gëstu jox parolier bi liggéeyam ne ko gëstul ma ci li soo amul xam-xam bi les paroliers sont la nga liggéey ak ñoom jël ba pare musicalement nga jël de bons musiciens yoo xamante ni am nañu xam-xam ci ci art bi ñaari yooyu bu ñu dajee day nekk symbiose symbiose boobu entre musicalité ak euh, recherche euh, ci wàllu xam-xam euh, li ñu war a way du jeex waaye dafa mel ni alxuraan tey jii chaque jour nit ki da nga war di nafar et c'est important Pape il a compris cela mm-hmm. liggéey ak ay liggéey ak de bons ay musiciens mu yàgg ak ñoom lool macha allah wóolu leen jiital leen avec de bons technicien aussi yoo xamante ni mixel nañ ko morceau yi de morceau en morceau jël seen temps loolu moo indi tey diversité musicale bi mu am tey muy sorti album bi. macha allah ñu ngi rafetlu kàddu yu am solo yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ah, bu ñu ñëw si yow mi nga xamante ne yaay suñu papa suñu xarit ah, ba ngay way la day mel ni ñun juddooguñu ba tey jii nii mm-hmm. nga def liggéey bu am solo tey say way nga xamante ne yaa ngi ko doon way ay jamono ba tey ji ah, dañ koy mën a di déglu mm-hmm. waaye boobu depuis loolu nag gëj nañ laa gëj nañ laa gis tamit ah si single ak si album tamit lan la ñuy xaar dama jëloon recul nag dama jëloon recul bu baax man wayu ma ba daanu mm-hmm. comme on dit way way bañ ñëwee dafa daanu waye ko daaneel amul donc noonu mais ndox ndox dafay am dans la vie et puis bi ma dalee tam ma gëm yàlla reculer xawoon naa tawat tuuti euh, ay ndox ndox dal ma mais ma muñ ko toog bi ma reprendre ba war a reprendre Covid bi ñëw moo gën a retardé affaire yi mais en ce moment incha allah maa ngi waajal si 2023 bi euh, bu dee single la di ngeen ma ci dégg bu dee tamit di jouer ay prestations si yi nga xam ne moom la samay mborom di joué di ngeen ma dégg na ñëpp ñaan rek incha maa ngi ñëwaat alors ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf jërëjëf merci beaucoup